abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kadu mag ñi maliki yawmi ddin iyyaka na wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladina an'amta alayhim ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp ñu ne boo waxee gayril maxdubi alayhim wala daalin nee na boo compté lettres yi fukk la ak juróom soo boolee nag fukk juróom yooyu nga boole ko ak quatre-vingt-dix-neuf yële da lay jox cent quatorze mu ne saar ci biir alquran yëpp téeméer lanu ak fukk ak ñeent cent quatorze leen moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci xeyri maxdubi alayhim wala dallin neeneen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yëpp mel ni ku jàngoon kaamil bi ba jeexal ko ñu wala dallin boo compté lettres yi nekk na dix fukki lettres la mu ne bu fekkente ne nag dix lettres yooyu ti wala dallin da nga ko boole ak cent quatorze yële dana la jox cent vingt quatre mu ne moo tax mu ne eh, yonent yi maanaam anbiya u yi ñoom seen lim nekk na eh, cent vingt quatre mille cent vingt quatre mille ay yonent yoo xamante ni ay anbiya u leen àgg nañ ci cent vingt quatre mille kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala daalin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen moo di anbiya u yi dana am seen yool ñu di cent vingt quatre mille ay anbiya mu mel ni kon fatiha daal ndekee dara niilu ci lépp ngëneel la ñu ne itam waaw aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmaani rahim waaye am na ñu ko ci seppi am na ñu ne e fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin ndax bismillahi rahmaani rahim bokk ci mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin waaye ñooñu siraat allazina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmaani rahim la bu fekkee ñi ko ci boole la ñoom dañuy jàpp ne siraatal ladina an'amta alayhim gayri maxdubi alayhim wala daanil loolu moom loolu moom mooy benn aaya bi kon su fekkente ni ñi kontewul bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani rahim ne bokkul ci fatiha ñooñu dañ naan lii mooy fatiha da nga naan alhamdulilahi rabil alamin mu di benn aaya arrahmaani rahim mu di ñaari aaya maliki yawmi diin mu di ñetteelu aaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu di ñeenteelu aaya ihdina siraata almustaqim mu di juróomi aaya siraata allazina an'amta alayhim mu di juróom benn xayril maxdubi alayhim nekk juróom ñaar am ñi ci limaale nag bismillahi rahmaani rahim ñoom dañu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddin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 am ñu ne téeméer ak ñaar fukk ñett am ñu ne téeméer ak fanweer waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi te ku ne dégg na ne faati eh, alquran am na juróom-ñaari jàngin ñu ne jële ci lenn ni ndongo mu di ay taalibe ñu jële ci seen sëriñ ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la feebar bu eh, doy moo xewoon ci seen dëkk nee ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee tamim yi nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi nee na dafa digal nag ay taalibeem ne leen e, malaat bu nekk ci malaat yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha te bu ngeen koy jàng na ngeen na ngeen ci boole bismillahi rahmaani rahim te bismillahi rahmaani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi maanaam boo boo boo day jàng saar wi da nga naan bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar yàlla dana leen defal ak wér te taalibe yi nee neen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura dañoo daal di wér moo tax wax nañ ne wa man qara'aha maa wasli l basmala ala al marid ihda wa arbaina marra chafaahu mu ne képp koo xamante ni jàng nga fatiha nga taqale koog bismillahi rahmaani rahim nga jàngal ko aji feebar nga jàngal ko ko ñeen fukki yoon ak benn tafli ko ci kawam nee na yàlla dana ko may wér su fekkente ne feebarul feebaru dee ñu ne waman daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala bayna sunnati subh wa fardihi ixda wa arbaina lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kaana faqiran agnaahu allah wa in kaana madyunan qada allahu anhu ddayn وإن كان مريضا شفاه الله سريعا وكان محبوبا عند العالم العلوي والسفلي وكان مسموع القول ومقبول الفعل ومهابا عند عدوه ومحبوبا عند محبه ولم يزل في أمن من الله ما استدام عليها ñu ne képp koo sax nga ci jàng fatiha di ko taqaleeg bismillahi rahmaani rahim ci diggante bi nga jullee sa ñaari raka fajar ak fa ngay suba nga jàng fa lu tollook ñeen fukki bisimilah eh, ñeen fukki alhamdulilahi rabil alamin ak benn nee na nee na daraja joo mënti wut place boo mënti wut da ko am ci kattanu yàlla nee na itam boo bu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom nee na bu fekkee danga amoon bor boot fay yàlla mën na la dimbali nga fay ko nee na boo feebaree itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba ci saafara bu gaaw nee na bu fekkente ne E, yaa ngi koy jàng nee na ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañ lay bëgg nee na itam sa kàddu kàddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk nee na itam say jëf lu ñuy nangu la boo defee rek ñu ne iskay nee na itam say noon dañ lay ormal respecté la nee na itam say soppe dañ lay gën a bëgg nee na doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla nee na fekk yaa ngi saxaw jàng dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamante ni moo di waxtu suba mu ne képp koo xam ne folli nen la ci barab te nga bëgg fa dellu nee na ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi te moo di ñeen fukk ak benn nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar raaka fajar ak suba fi ngay jullee suba nga def ko nag e, lu tolloog ñeen fukki fan ci lu dul nag nga bàyyi benn benn benn benn benn espace wala nga ci wàññi dara nee na lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax yàlla mën na laa may doom ji yiw joo xamante ni ñëpp koy bëgg ñëpp koy ormal ñu ne jële neen ci anas radiallahu anhu mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam nee na mën naa jàng fatihatul kitab jàng qul wallahu ahad nee na mu jàng ko nag ñetti yoon jàng yitam ñaari musluwaay yi te moo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak bi naas neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd nee na yàlla defal na la sécurité dara du la laal dara du la gaañ boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gaynde kese ñoo fa nekk àll bu lëndëm itam nga tari lii tëdd fa yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal ñu ne faatixatul kitaab am na ay ngëneel ndax nee neen faatiha dafay dalal merum yàlla nee na soo day jàng faatiha day tax yàlla du la mën a mere daf lay bëgg toujours nee na yaasin suuratu yaasin ngay jàng yaasin nee na day tax ëllëg yowmal xiyaam nan nit ñi di maree ndax tàngoor baak ni malaaka yi di pamti pamti nit ñi di leen sonnal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñëppay mar nee naan bu fekkee saxoo fii di jàng yaasin nee na ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëg mar nee na suuratu duxaan benn saar la ci alquran nee na ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi rappi ba way jur bu jubee bu doom jubee way juram way juram daw ko ne ko musuma laa jur xawma la ndax jaaxleeg tiit nee neen boo dee jàng suuratu doxaan ëllëg doo tiit googu nee na du la dal nit ku tabarkàlla ngay nekk ku nit ku posé ngay nekk koo xamante ni day mel ni sax e yëguloo li xew mu ne nag suuratul waaqia mu di isa waqaatil waaqia mu ne boo ko dee jàng day tax doo ñàkk day tax itam du umu nee na itam suuratul mulki muy tabaaraka alladi bi yadihil mulk nee na soo ko dee jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara doo am mbugalum bàmmeel malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal te malaaka yooyu nekk ay fitna nee na boo dee jàng suratul mulki malaaka yooyu doo leen gis nee na suratul kawsara maanaam inna aatayna inna aataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa labtar ñu ne boo ko day jàng day tax ëllëg yowmal xiyaam ñuy xuloo kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nangam kii naan yaa defoon nangam ñuy weerante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu weerante weerante ak weerante ak xuloo bisub jëppante ak bañante ndax e bis la boo xamante ni bisu fitna la nee na boo dee jàng suratul kawsar nee na xuloo boobu yàlla daf la ci seppi teg la fële doo ca bokk nee na képp koo xam ne yaa ngi jàng xul yaa ayyuhal kaafiroon nee na day tax sa day tax eh, doo yàlla te itam eh, danga nga ci liimaan waaw xul yaa ayyuhal kaafiroon am na sax ñu ne naafeq du ko mokal waaye daal sar la boo xamante ni soo ko day jàng moom foog nga dee ci liimaan te itam li nit war a ñaan rek mooy dee ci liimaan ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nekk ci lu bon ba ne nitu safara la loo nekk ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis boo nangoo tuub génn ca keroog la ca yàlla di génn ba set ci wicc jéggal la yërëm la baal ba mel ni def benn bàkkaar képp koo xamante ni jàpp nga ne mas ngaa defal yàlla dara ba naw ci sa jëf lu la nga def lu mu bari bari donte téeméeri at nga ko saxoo jaamu xëy benn bés rek gis sa bopp ci jaamu ga yàlla soxlaatul ca la nga def dara te loolu moo dal iblis moo moo tax dee ci liimaan lu nit ñi di war di ñaan la moo tax ñuy wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xawf wa raja suratul ixlaas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boo ko day jàng day tax sa xol du am naafeq ak naafiq du nekk ci sa xol te dañu wax ne eh, naafiq yi ëllëg yomal xiyaam ñooy gën a bon sax daraja ñooy gën a bon daraja yéeféer yi nga xamante ni dañoo bañ yonent bi ba jàkkaarlook moom ne ko bëgguñu la ndax naafiq moom dañ ne ku ko rey rey jullit ku ko bàyyi bàyyi yéeféer ñu ne nag képp koy jàng lexlaas ñu ne sa xol dina mucc ci ak naafiq képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul falaq maanaam xul a'uuzu bi rabbil falaq nee na yàlla dana la musal nee na ci pexeem ñu añaan ñi ñi lay añaane di la fexeel bis bu nekk pour yàqal la soo dee jàng suratul falaq yàlla dana la musal ci seen pexe ñu ne itam képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul naas mu ne qul a'uuzu bi rabbin naas nee na jax-jaxaluk seytaane bi nga xamante ni dañul di digal nit ñi lu bon nee na danga ca mucc ñu ne bokk na ci jagle yi nga xamante ni fatiha am na ko mu ne day ubbi bunt yiw yi moom fatiha mu ne kon benn doga ngi nii boo xamante ni nit ñi mën nañ koy jëfandikoo pour yàlla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne képp koo xam ne bëgg nga say buntu yiw ubbeeku nee na na nga fexe ba bu weer wi deewee nga xamante ni maanaam bu weer wi teroo ci weer wu bees wi nga xamante ni weer wi teru na nee na nga commencé nag ca dimance ji ci njëkk ngay commencé jàng fatiha nga taqale ko ak bismillahi rahmaani rahim ca dimanche ja boo ko dee jàng nag na nga ko jàng juróom-ñaar fukki yoon mooy soixante-dix fois bisu altine ba bu ñëwee soixante-dix yi da nga ciy wàññi fukk nga jàng ko juróom benn fukk maanaam sittina marat ci bisu altine kon boo jàngee fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi njëkk ci weer wi nga jàng ca juróom-ñaar fukki fatiha altine ja yaa ngi jàng juróom benn fukk talaata talaata ja bu ñëwee yaa ngi jàng juróom fukk àllarba ja bu ñëwee nga jàng ñeen fukk bu alxames ji ñëwee nga jàng fanweer su ajjuma ja ñëwee nga jàng ñaar fukk su samedi ja ñëwee nga jàng fukk li su fekkente ni def nga ko yàlla mën na la ubbil ay buntu yiw ci dog bi nga xamante ni joxe nañ ñu ne itam boo yii mu fi wax yépp soo leen boolee dana nekk téeméer ñu ne kon nag téeméer boobu képp koo xam ne sax nga di ko jàng par njël bu njël jotee nga jàng téeméeri fatiha ci waxtu njël nee na itam dana tax yàlla yombal sa wërsëg te itam sa yëpp sa mbir yëpp mën nañuy dox te doo am benn coono mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga mu nekk beneen dog boo xamante ni itam dañ ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mën a jàppandal yi nga xamante ni dafa jafe woon mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla ubbil la bunt yiw yi fattal la bunt ay yi nee na na ngay jàng faatixa ci limu yonent yi yonent yi nag 313 lanu kon jàng faatixa ci limu 313 baax na am na sax ñu ne jàng ko junni yoon maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni faatiha bu feke mënuloo ko nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan wala nga séddale ko ci juróomi fan wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan mu ne incha allah lu dugg rek yàlla dana la ci defal eh, ak jàppandal mu ne nag à condition que boo koy jàng nga yor njàpp soo koy jàng itam nga jublu xibla te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bula dara empêché bul wax ak jabar bul wax ak doom bul wax ak kenn da ngay toog jàng ko noonu rek mu ne itam bokk na ci njëriñu fatiha ñu ne képp koo xam ne sax jël nga coton bu fekkee da nga am dañ la jam wala ñu gaañ la mu nekk nàcc-nàcc nga jël benn koton jang ci fatiha juróom-ñaari yoon tafli ko ci taf ko ci gómb yàlla fa la koy yemale day wér waaye du du garaaw mukk loolu itam e jag ak jagle la goo xamante ni mu ngi ci biir fatiha ñu ne am na beneen dog boo xamante ni itam mu ngi nii ci fatiha mën mën nañ ko jëfandikoo mu ne fatiha daneen ko jàng ci ginnaaw boo jullee suba ba pare mën nga ko jàng fanweeri yoon soo jullee tisbaar ba pare mën nga koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom soo jullee tàkkusaan ba pare mën nga koy jàng ñaar fukk su e yaa ngi sax ci jàng fatiha ci ginnaaw julli gu nekk nga jàng ko téeméeri yoon nee na loolu moom dafa gaaw lool ci faj aaju ñu ne diko jàng ci ginnaw julik suba nga jàng ko ci harafam yi 125 125 nga jàng ko ci harafam yi nene itam yàlla dana la dimbali ci say aaju ñu ne jële len ci cheikh muhyiddin ibn arabi qaddasa allahu sirrahu من كانت له حاجة فليقرأ فاتحة الكتاب بعد صلاة المغرب منك جلننتي الشيخ محي الدين ابن عربي يالنا يالا sellal mbootam mu ne képp koo xamante ni am na aajo mën nay jàng fatihatul kitaab ginnaaw bu ñu julee timis ba pare ginnaaw bi mu defee naafilaam ba pare mu jàng ko nag ci dogu ñeen fukk nee na boo ko jàngee ci dogu ñeen fukk yàlla dana yombal say bëgg-bëgg ñu ne itam fatiha léeg-léeg dana nekk kiis mu ne ndax képp koo xam ne jàng nga fatiha ci njàpp nga jàng ko juróom ñaari fan fan bu ci nekk nga jàng ko ci juróom ñaar fukki yoon nee na nga tafli ko ci ndox mu laab nee na nga naan ko nee na mën na yokk sa wërsëg mën na yokk sa xam-xam nee na itam dana dana di jur ci nit ki du gaaw a fàtte ndax e, kon dafa mel ni e, dog bi moom baax na ci képp koo xamante ni xam-xam sa yitte mu mel ni wax na ne dogu ñeen fukk bi képp koo xamante ni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jàngal dana dellu si ak jàmm ñu ne itam képp koo xamante ni am na métit ci bëtam wala mu am métit ci bëñam mu faral di jàng itam saar bi nee na itam yàlla dana ko ci defal sutura ci métit boobu ba yàlla mën na ci def sutura du àgg foo xamante ni mën na ko dépasser mu mel ni saar bi dafa ubbeekoo benn xaraf bu am solo mu di baatu alxamdu te alxamdu di cant goo xamante ni kenn xamul nu mu toll ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wér yaramam ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yëpp suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boroomam te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boroomam ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boromam xeeb ko ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur amul foofu nit jaaxle fi yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne dana tolloog li ma la defal ci teraanga kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun ndax e alhamdulilahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox xéewal yi moo ñu ko jox kon lépp day dellu ci moom kon alhamdu dara darajay cant ak la làmb ci ay ngëneel ak xéewal yépp lillaahi yàlla moom moo ko moom mu mel ni itam e baatuk cant yàlla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say moroomu nit parce que itam yàlla wàccegul fii ci àdduna fajal kenn soxlaan lu ne rek daf ko wutal eh, ab wutal ko intermédiaire wut itam fu mu koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bële moom dem may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal jaam bi itam daal sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo moom kon mbokk yi fatihatul kitaab xaajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom mu ëpp wante itam comme waxtu wi dafa jeex ñu mën rek lu dul bàyyi suñu mbokk al imaam Moussa Gueye e mu dugg si waxtaan ak yéen seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop incha allah ajuma bi di ñëw danañu dugg ak yéen ci eh, waxtaanu yonent yàlla Moussa.